muy Palestine ak Israël waaye dafa mel dafa yemoon ciy wax rek waaye dem nañ ba ci biir ñu bëgg mëbbaale li nga xam moom lañ fa dese ñaaw na ci image tey bu fekkoon ne beneen réew lañ koy def bu dul réew boo xam dul islaam danañ jug ne euh, euh, euh, l'humanité danañ jug ne façon organisation ak ONG yi ñu tëral mhm. droit de l'homme danañ yëkkati yooyu teg ko ci ay tappale ngir fas yéene défendre ña fa nekk te bokkul ci lislaam waaye ni muy rayee jullit yi ñu di ko filmer di ko wane en image ñëpp di ko seetaan rek gest bu ñaaw la donte bu ñu waxoon minal masjid al xaraam ila al masjid al aqsa rek dayoon na sëkk ñu koy célébrer ak di wane na ñun ca la ñu bokk tey lan lañ ko war a métti donte wax naa léegi acte bi ñu njëkk a signé ci eh, ñaari dawla yi ci nangu ñu partagé kii tàmbalee fi yam fii kii tàmbalee fi waaye dem nañ ba mënatuñu loolu waaye gis nga barki démb bi tey Erdogan jógee taxaw ngir fas yéenee Euh, jàppale leen yeneen réew taxaw na ñoom it ngir fas yéene jàppale Israël kon léegi nekkatul léegi niñ ko jàppee waaye léegi politique la boo xam ne dafa ànd ak ko caay-caay ñu ko suñu Ahmed waxee tabaarakallah mhm. euh, jërëjëf mhm. ci laaj boobu mhm. may tàmbali rek wax bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mm-hmm. wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin di nuyu macha allah mboolem ñi ma bokkal plateau bi mm-hmm. sunu xarit mm-hmm. seen xarit xaritu ñëpp Oustaz Ahmed Saloum Diagne naasiru diini mhm. nga xam ne li waykatu arab ba doon wax ne xalla an absarat mhm. ay naaka da laqabin illa wa maanaahu law absarta fi laqabin mhm. tur dafa am solo ñu ko tuddee kii taxawu diine ji ah bu melee ni mu mel ci taxawu diine ji taxaw bu amul frontière dañ naan tur bi rek moo wuy si macha <laughs> allah seq ko ñëpp nag ndeysaan loolu la ma neexee amul frontière micro bi baax di kontaan ci kër gi yàgg naa koy wax. Mm. su ma seetee presse islamique. Mm. Mm. qualificatif bi ñu koy jox. kër gu ko jëmmal dëgg dëgg jëmmal. man bii moo ci jiitu. ndax am na ay kundum kundum. <laughs> ak ay kumbal. ak yu bëree bëri yoo xam ne fépp nga koy fekk waaye amul fii. dëgg la. bu ko yëkk bu ko diine yëkkatiwut. dëgg la lislaam yi dëgg la dëgg la. kooku ay jagle la yu fay. Mm, mm. a ñëpp mën a teg bët. Mm-hmm. te nag lu dellu ci kër maam Cheikh Bamba. Mm-hmm. noonu la noonu rek la mën a demee. Mm-hmm. ndax maam Cheikh Ahmadou Bamba ku ko xam-xam jàngam. jàngatam. lépp lislaam lépp jullit ñi la. damay faral wax ne ku bokk ci kër googu. te xajoowu la jullit ñi ñëpp man danga ma jaaxal hmm. <laughs> ndax ñëpp la jox place ci ay jàng benn hmm. hmm. bi ku bokk ci këram aussi te bëgguloo xam-xam aussi da nga ma jaaxal <laughs> kon jërëjëf sëriñ Mbàkke yu fay ayam gi wax dëgg yàlla masaalikul jinaan rek def ci doy dëgg la doyoon na ci dëgg la Mm-hmm. waxuma laa kër gii mm-hmm. ak yeneen ak yeneen mm-hmm. yal na ko yàlla yokkee maqaamam yokkee ko garaatam yokkee ko ngëneel eh, di nuyu al oustaz muxtaar mi nga xam ne yàgg nañuy jonjoo ci yoonu jottali ak liggéeyal lislaam liggéeyal diine maa ngi seetlu bi nu yëkkatee ci affaire fulaar islamique mu dalaloon ñu ca ñu wax defoon ci waxtaan boo xam ne macha allah ah, xam naa ni jotaay bi moom jox nañ ko yitte ndax bu fekkee ne directeur de programme moo toog. <laughs> Mm. waaw dëgg la dëgg de waaw programme boobu bayreel nañu ko. dëgg la ah, ah, dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la imam. <laughs> yooyu itam ñu ngi lay jiital. jërëjëf laaj bi ngeen laaj nag. <laughs> mbiru Palestine. Mm-hmm. li ko tax a jafe ñal mm-hmm. mooy li ci lalu. li ci lalu. li ci lalu. Mm-hmm. dafa xóot. Mm-hmm. dafa bari. Mm-hmm. dafa yaatu. suñ demee ki njëkk a wootee amal état ñu koy wax Théodore Herzl. ca tàmbali da doon wax ne pour l'Europe nous serions un morceau de rempart contre l'Asie. Mmh. Et nous constituerons mmh. une sentinelle avancée de la civilisation contre la barbarie. mu ne nun li ñu yëkkati. Mm-hmm. li ñu samp ci gox boobu lu diine. du droit international mhm. du nite du jikko mhm. waaye pays Europe yi nga xam ne tey jafeñ-jafeñ ak jaxasoo ak salfaañoo lañu ñu bëggal réewu jullit ñi ci seen loxo la ñu juddoo ñooñu samp pour gox boobu jàmm du fa am dal du fa am féex du fa am mhm. RSL ci boppam moo wax loolu pour l'Europe nous serions là-bas un morceau de rempart contre l'Asie mhm. Mhm. yaakaar naa ne benn euh, conseiller de l'un des présidents des États-Unis d'Amérique doon na ko nous devons comprendre que les divergences qui existent entre nous et les pays musulmans, ce ne sont pas des divergences entre des pays, ce sont plutôt des divergences entre la civilisation islamique et la civilisation chrétienne. La création hum. et le maintien d'Israël en est une des stratégies. Hmm. Elle n'est que la continuité des guerres croisades. mu ne jafe-jafe yi am. Hmm. suñu diggante ak réew jullit yi lu ci droit international lañ koy regle du ci ngor lañ koy réglé. Hmm. du ci nite lañ koy regle yooyu buñ ko ci doon réglé jeexoon na bu yàgg. Hmm. mu ne waaye suñu wujj bu mag bi te yàlla moo njëkk wax ci alquran ne ñooy suñu wujj yi. walan tarda anka al wala nasaara xatta tattabia millatahum wala yazaaluuna yuqatiluunakum xatta yaruddukum an dinikum in istataau jaamaar loola suñu diggante ak li lislaam jëmmal kon mbir mi bu ñu ko jàngatee noonu rek yu bari duñ ko mën a comprendre ma lay wax ni sionisme bi nga xam ne moo indi xalaat boobu yàlla dafa doon wax ci yahudi ne duribat alayhimu dillatu aynama suqifu illa bi hablin min allahi wa hablin min annaas yàlla daf leen toroxal mhm. di leen toroxal di leen toroxal di leen toroxal ba yàlla nee du ñu sottal dara dara dara dara dara lu dul nga xam ne ñeneen ñoo ñëw jàppale leen ci dooleel leen ci tàllal leen loxo gis nga sionisme bi juddu mhm. te RSL mi juddal ko ma nga lay wax ni ki ko ko njëkk a conseiller mi ngi tudd William Esler William Esler boobu mooy jàng seen téere bi yaa su qu'on appelle le sionisme alors chrétien ñoo gën a bëri tey les sionistes juifs. Mhm. plus de deux cent trente millions. surtout aux euh, aux États-Unis d'Amérique. Mhm. chrétiens ya fa nekk surtout protestants yi 41 pour cent yëpp. Mhm. c'est alors chrétiens. Oh. Mhm. donc loolu dafa gën a compliquer mbir mi. ñoom dañu tekki seen bible bi tekki yin woo xam ne moo leen def ñoom 300 euh, euh, non 230 yooyu gëm Israël ni ñu ni ñu ne ne la ñu gëmee seen diine ak seen yonent noonu la ñu gëmee mbiru Israël. ba ci kilifaay Isra eh, eh, eh, États-Unis yu bare bare bare bare mhm. Mhm. kon dama la bëgg a wax ne mbir bi mbiru réeral nit ñi ci diina daf ciy bokk mhm. te bu ñu fàttali aussi bari fi démboo njaay y avait ce qu'on appelait l'inquisition mahakimu taftish ci oh. turu diina jooju lañ ko instauré woon xeex ci ay scientifique yu bare rey ci ay scientifique yu bare bokk na ci Galilée ak ñeneen ak ñeneen même erreur boobu est en train de se répéter parce ce courant la qu'on appelle le sionisme chrétien bi nga xam ne sont plus nombreux que les sionistes juifs. 230 hmm. millions alors que les juifs passé wuñ millions. kon côté diine boobu daf ci bokk. Hmm. côté géopolitique bi daf ci bokk. France tey Napoléon Bonaparte. mais da jàpp ne côté diine bee ëpp. côté diine bi. Euh, am na ci doole trop. parce que mm. ñoom dañu dellu ci texte. waaye nag nañ ko jàngatee moo reelu suñ demee ci jeunesse dañuy wax ne Dieu conclut une alliance avec Abraham en ces termes à tes descendants je donne ce pays du fleuve d'Égypte au grand fleuve d'Euphrate mm-hmm. mu ne ko Ibrahim yàlla nekk kii si yéen si yéen ak yow benn kayit <laughs> waaye loolu reelu na de mm-hmm. mooy suuf sii mm-hmm. sa njaboot laa koy jox mm-hmm. ñoo ko moom donc ñoom ci verset yu mel noonu la dellu tekki ko tekkiin yu nu jiit yu nu juutal ndax que buñ ko tekkiwu doon tekkiwun yu nu juutal buñ ne njabootu Ibrahim wér na ni Ismaayila ci la bokk seen bible bi même tudd na Ismaayila boobu douze fois ne doomu Ibrahima la maamu arab yi la te arab yi ñoo doon dëkkee ci suuf soosu depuis trois mille ans wala quatre mille ans avant Jésus-Christ hmm. continue di fi dund aussi deux mille ans après Jésus-Christ six mille ans alors que nit ñi li ñuy réer réer ci wàllu histoire yëpp ak li leen ci jaxase yëpp wala li leen ci terroriser yëpp ma wax ne ne ne Israël juif li ñuy dominer réewu Palestine passewul quatre cent onze ans mille cinquante avant Jésus-Christ ci jamono dawut ak Souleymane neuf cent cinq mu jeex après ñaari royaume yi benn bi di Juda benn bi di Israël bu juda bi moo gën a yàgg mi ngi jeex alors 586 euh, avant Jésus-Christ ci Nabucodonosor beneen bi alors 722 la jeex donc boo calculer nga commencé ko ci royaume bi mujj a jeex ba nguurug Souleymane ci nu raaka loolu lañ ko dominé léegi loolu par rapport ak 6000 ans li fi arabe yi di def représenté lu 7 pour cent nit ñi nañ jàngat histoire universelle. ndeysaan ku am. mais sept universelle sept pour cent. Ah. nan nga ci mën a sukkandiku ci sept pour cent yooyu. jox ko doole ju ëpp. li ngay jox borom quatre-vingt-treize pour cent. waaw bu ci wàllu diine eh, imaam nga baal ma ndax ndax du ndax du yi tamit nag jullit yi ah. ñoo defut li leen suñu borom santoon waa dëgg la ci ñàkk ànd ñàkk booloo ba tax ñu yokkat hmm. loolu mu leen euh, fala tanaasoo fa fa tasxaba riixakum yaakaar naa noonu la waaw waaw loolu la leen waxoon léegi nag bu ñu demee tey ji ba loolu am ah. juif yi ngay wax ni àdduna bi xëy na matuñu vingt millions waaye ñu defub hmm. ba lu leen sob bi am hmm. ñun ñu doon daanaka milliard te mënuñoo fexe ba ba dakkal lii loolu nag kon fan fan la problème bi au lieu ñu koy xool ci juif yi nañ ko xool ci ñun man d'accord naa ci li nga wax ne ñu defub dank hmm. waaye gis nga bu ñu depuis 1943 Angleterre. actuellement États-Unis d'Amérique. 1973 uh-huh. ba 2003 xam nga Israël Amérique ñaata la soutenir Israël. 1600 uh-huh. milliards de dollars. soo ko séddale woon adduna bi ku nekk dana am mille 5700 dollars bu ñu wax Israël moo def dànk moom kenn kese. Uh-huh. dañ ko jàppale uh-huh. yàlla waxoon na ci alxuraan toroxal na leen toroxal toroxtaande boo xam ne du ñu demal seen bopp uh-huh. kooku moom dama bëgg ñu boole ko ci jàngat bi du Israël kese julli ñi nag am nañ problème yu bare bare bare bare xam nga Seydina Omar lim doon wax nahnu qawmun a'azzana allahu bil islam ida tarakna al islaama wa natlubu al izza min gayrihi adallana allah suñu doole suñu victoire suñu ndimbal suñu jiite yeneen xeet yi mi ngi aju kenn talaay ni ñu toppee lislaam ni ñu toppee diine te li nga wax bennoo googu dafa bokk ci jàngalee diine jàngale lislaam yi gën a rëy wa anna haadihi ummatukum ummatan waahida wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqun yooyu yëpp nag buñ ko bàyyee mhm. surtout suñu mbokk arab yi mhm. dafa am ko ne wax Cheikh Kishka mhm. xatib bu mag la bu ñëpp xam équation moom xam nga dafa mën a def ay équation mhm. dafa doon wax ne arab naaqis islam tusawis arab mooy islam mhm. égal <laughs> boobu nag moo ñu topp tey am na loo xam ne ci ñun lay dellu mais am na loo xam ne ci nekk ci ñi nekk ci gannaaw Israël di ko jàppale di ko soutenir ci alal ju dul jeex mhm. mille six cent milliards de dollars mhm. trente pendant trente ans mhm. na budget pays arabes pendant vingt ans ak itam deux cent trente chrétiens sionistes yu nekk États-Unis d'Amérique mm-hmm. yore fa ay université mm-hmm. yore fa ay chaîne de télévision loolu boo jëlee pétrole pétrole pétrole pétrole bi julli di yor tey même tey même ah. mais mais mais lobby juif bi ñuy wax lobby juif bi li ko gën a doole ah. mooy les les sionistes chrétiens Mmh. dëgg la ko war dëgg la tubaarkàlla jërëjëf suñu islam jërëjëf ak ñàkk a bennoon bi. Ah. bi. dëgg dafa mel ni. imaam laal na imaam laal na ay points. Ah. yoo xam ne sëñ Maxtaar laa bëgg mu ñëw ci.